asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen a ngi déglu Vibe rajo téeméer ak ñaar ju tomb ñett la nouveau son dalee nag jàmm di biir jom ñetti fan octobre 2023 ni ñu koy defee ay bés bu nekk seen émission hashtag news tey nag euh, wàllu njàng la ñuy waxtaane la moo di ubbite bi l'école bi nga xamante ni altine le jàngalekat yi ak personnel administratif bi door ñi nga xam ne ñoo di gone yi fekk si leen ci juróomi fan waral nag ñu ciy dalal tey jii monsieur Amadou Camara Diène du coordonnateur des enseignants décisionnaires salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu di la fay di la ziar di la dalal fii ci Vibe Radio monsieur Camara waaleykum salaam wa rahmatulah monsieur Fall ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal sa collaborateurs yi. Euh, di nuyu bépp auditeur bu Vibe rajo te di leen euh, ñaanal jàmm. aywa ak moom incha allah xam naa ne dina ci saf sàpp wàllu njàng daanaka la ñuy waxtaanee buñ ci beddee hashtag bi ak ubbite bu l'école bi wax naa leen ko kaaw décisionnaire yi nga xamante ni dañ koy faral di wax di ko wax di ko wax di ko wax ah loolu lépp dinañ ci ñëw ak it ado scolaire bi atum njàng mi ak élection yi ñu fas yéene dëgmal ak it euh, ñoomin seen waaye laata loolu dañuy ñëw ci hashtag bu bés bi mu di lan jamono yooyu ñu génn ah boobu ak léegi ay bés la ñu gis ni rek opération déguerpissement jëlee ñenn ñi euh, ancienne piste ba nekk ci Mermoz dimanche ba la woon boobu ak léegi na ay bés kon nag autorité préfectorale bi bu jël ay ndawal kaaraange ak ñëpp daal waaye la ci gën a fees daal moo di ñi nga xamante ni moo di mécaniciens yi daanaka ñoom fa lañ leen euh, jëlee daal di nag dañ leen utal place fa nga xamante moo di jam ñaajo lu toll ci ñeenti téeméer ci ay euh, mécaniciens ñu fas yéene leen recaser ci wetu euh, Sébikotane kon ñu fàttali rek cité imbécile jaar nañ fa kon nag jëlee nañ fa toll junni ak juróomi téeméer keroog nag dimanche ba ñu nekkee ca mbir ma préfet bu Ndakaar moo talatin kàddu yi la indi ci ay leeral ñu teewlu a xam kenn nekku fi balaa engins yi di ñëw bi ñu defee loolu nag ci la engins yi mooy bulldozers yi ak yooyu commencé liggéey bi daanaka fekk mu ngi nekk ay sept heures huit heures du matin et boobu ba léegi comme ni ngeen ko nemmee ko liggéey boobu mu ngi wéy te tant que mbir mi jeexul moom bu laajee suba ñu ñëwaat ginnaaw suba dinañ ko def incha allah kaaraange pour mu mët dañoo war a xeex lépp loo xamante ni ay dukkuwaay la yoo xamante ni euh, méngoowul lii li euh, norme Irma digle moo tax ñu tàmbali ko ci cité imbécile euh, eggale ko aussi ci euh, zone de captage tey ñu door ko fii ci ancienne piste te may wax ni aussi dañ ko nar a ci bépp béréb boo xamante ni nemmeeku nañ ni day indi jafe-jafe ci wàllu aalam bi waaye aussi day indi surtout jafe-jafe ci wàllu kaaraange. mais Sénégal moom loo ñaax-ñaax di gis ni am na ñoo xamante ni moom dañuy xaw tëxit moo tax euh, il fallait que ñu entamer opération bi quand pour euh, mën a jëmmal li nga xamante ni am nañ ko comme objectif pour renforcer kaaraange gi nga xamante ni moo war a am ci biir capital bi ci këyit boo xamante ni moom la yoon euh, prévoir pour booy nekk ci bërëb tey jii fa ñuy jëm fu ci nekk mën nga fa dem ba am fa titre foncier loolu yaakaar naa ni mun naa wax ni guleet la aywa di kàddu yi rek moo taalatin préfet bu Ndakaaru donc monsieur Camara def naa dégg nga ko ci dogal bi nga xamante ni jógte nañ ko di yaatal di jël ñenn ñi di leen yóbbu surtout kaw mécaniciens yi nga xamante ni dañ leen wala relogeur foofee ca Sébikotane waaw monsieur Fall bu fekkee ne par exemple li nga xamante ne moom lañ déclaré officiellement loolu moom la moo tax ñu koy def wax dëgg yàlla dañuy tàccu ndax euh, nit ku nekk bëgg nga kaaraange sa fa nga dëkk te bëgg aussi ñu protéger alam bi wante euh, boo xoolee doxalin bi ak li nga xamante ne moom mooy am toujours euh, dafay am zone yoo xamante ni euh, dañuy jël ña fa nekk jël leen yóbbu leen faneen fii dañ dañ fi soxla kaaraange mais boo demee tuuti rek as tuuti rek boo toogee dangay gis ne borom ndombu tànk yi war a borom daraja yi ñoom ñooy ñëw commencé di fa tabax donc toujours noonu lay demee moo tax nag da naan est-ce que mbir mi dañuy làqatu si genre décision yu mel nii pour mën a aakimoo ah, neexul dégg mais ñi nga xamante ñoom ñoo ñu gouverne instant bi si loolu lañ nekk ñoom bu ñu señoon euh, Dakar li ko wër ñoom rek ñoo fi nekk ñi des ñëpp ñu jël leen euh, ñu dem si périphérie bi. Mm-hmm. Euh, tey jii par exemple ab mécanicien est-ce que jaadul woon ñu teg ko foo xamante ne moo gën a accessible mais fu toll ni jam ñaajo imaginal tey nga am problème oto nan ngay ñokk ñokkee ba jam ñaajo li ngay lakk si carburant ak jot temps bi ngay am yooyu yëpp dafa xaw a teexel daal. moo tax ñu ne est-ce que ñoom exactement li leen yëkkati mooy protéger nit ñi wala boog euh, protéger aalam bi. Hmm. ndax foofu dañ ko war a mën def sax espace boo xamante ne war nañ mën a gàncax bon dafa mën a dundaat bu fekkee ne loolu moo tax ñuy jóg. Hmm. mais nag euh, seetaanul fees tuuti rek incha allah. waaw ah, parce que jëm naa jóg sax dama ciy taxaw tuuti ndaxte booy hmm. xool même ñi nga xamante ni euh, ñoo nekk ci zone des Niayes ak ñi def mbayum dër. mooy fi ñuy dence seen i yooyu ku mm-hmm. léegi ñu ñëw jege si leen te jël ko yóbbul ba jam mm-hmm. kon dafa mel ni président Macky Sall ni peut euh, ni dafa commencé bëgg nit ñi imposer leen jam ñaajo te def naa nag la petite ndànk-ndànk la te tepp mm-hmm. tepp moo gën yuréet ndax lu xew ñu ne jam ñaajo pare ñi nga xamante ñoom ñoo koy jëfandikoo dañu nekk ay kilomètres et des kilomètres loolu nag mooy problème bi su fekkoon ne par exemple li ñuy def yëpp dafa jege jam ñaajo doom problème mais mënoo nekk zone des Niayes ñu indi la ay chambre froide jam xanaa diggante bi rek ak embouteillage yeeg ah. di yoonu yoon yi nu mu méttee bu am na <laughs> ay ay produits yoo xam ne périssable yooyu bu boo ko naaj bi jàppee ba boo dencee après dafay yàqu parce que jot na sonn si naaj bi loolu mooy problème ñu ne sarax nag dugg mm. waxtaan wi xam naa ne ñi ñuy déglu yëpp ñu ngi xaar ñu wax décisionnaire tey décisionnaire décisionnaire monsieur Camara lan mooy décisionnaire d'abord balaa ñuy sori dama lay gërëm yow ndax euh, wax dëgg yàlla euh, yàgg na ngay wax si waxu décisionnaire ba nga nekkee si beneen journal daa nga sax bind si mbiru décisionnaire yi mais décisionnaire surtout de l'enseignement ndax décisionnaire bari na si administration mais décisionnaire de l'enseignement mooy jàngalekat yi nga xamante ni état bi bi mu leen di recruter nee ne dañoo weesu fanweeri at ak juróom mais bu ñu dellu see si li nga xamante ne moom mooy am si éducation mooy loo xamante ne voie de concours nga siy duggee mm-hmm. donc foo duggee voie de concours état buy lancer concours dafay wax ne maa ngi soxla ay sénégalais yoo xamante ne ñu ngi am fukki at ak juróom-ñett lu gën a néew ba fanweeri at lu gën a bëri hmm. donc ñëpp ñi nga xamante ne dugg nañ par voie de concours ay la yowén waruñu dépasser trente cinq ans bu ñu intégré mais euh, éducation mooy secteur bi nga xamante ni kenn du la recruter ak sa diplôme biñ la jëlee maanaam dañuy def concours ñu ne dañuy soxla bac plus wala boog ku am mhm. donc dañ lay jël ak bac bi wala BFM bi. bu fekkee ne par exemple da ngay nekk journaliste diplôme ba nga génne sa CESTI wala sa école de formation bi mhm. diplôme boobu lañ lay intégré. Mhm. mais bu dee éducation dañ lay jël ak bac mais dangay daw si biir njàngale mi di uti diplôme professionnel. léegi diplôme professionnel boobu nag li si laxu dafa bëri. mun nga ko teel a am bu la yàlla euh, dimbalee nga nekk zone bu mel ni Dakar mais bu la yàlla dimbalee nga nekk par exemple euh, Ourossogui wala zone boo xamante ni Fongolemi foofu dafa xaw a reculer foofu balaa ngay gis sax commission parce que ay inspecteurs ñoom ñooy ñëw seet si la ni ngay jàngale pour valider li nga xamante ne mooy sa diplôme professionnel mais loolu bu fekkee ne par exemple. mooy euh, ay CAP ak CAP ak te bul fàtte ni toogoon nañ fi juróomi at yoo xamante ne inspecteur dañoo grève woon donc pendant cinq ans. ñi nga xamante ne ñoo doon xaar examen professionnel yëpp kenn amoo see léegi diggante boobu ñëpp ñi nga xamoon am nañ 30 ans. Hmm. am nañ 35 ans ah ñooñu seen acte génn ñu ne leen ah yow kat sa kayit mu ngi soo génn tey donc dama lay def comme décisionnaire or que yow ba ngay nekk si njàngale bi xaajoo bay am 35 ans léegi bu fekkoon ne sax bu ñu la defee décisionnaire dañ lay jox plan de carrière bu normal doom problème. Hmm. mais li si yéeme mooy que boo xasee ba nekk décisionnaire chaque fois booy changer statut da ngay dellu si grade bi gën a Mhm. loolu mooy waral par exemple yow grade bi gën a yées si euh, njàngale par exemple élémentaire mooy IA de 1 muy instructeur adjoint deuxième classe premier échelon. chaque deux ans da ngay avancer chaque deux ans da ngay avancer bu yàlla defee. maanaam ay commencé commencer pour pour yéeg très bien. léegi nag ak boo mën a indaale ak boo mën a indaale zéro ngay commencer bi ak fonctionnaire bi bu ñu demee par exemple ñun ñaar ñoo duggandoo par exemple si njàngale mi en 2010. Mhm. tey ji yow fonctionnaire bi bu ñu demee par exemple ba deux mille quinze ñu defandoo CAP après dañuy toog di xaar acte génn acte boobu mën a nekk cinq ans six ñoo xam ba kañ lay génn avec les lenteurs et les <coughs> boobu bu génnee bu fekkee fonctionnaire bi la amul problème saa yu génnee grawul parce que day am rétroactivité maanaam dañ naan laan date ba nga defee examen bi date boobu la ñuy jël bu fekkee décisionnaire bi la dañ naan laan dat bi ñu ko signé date boobu la ñuy jël. te pourtant yéen yéen ko defandoo. te li si gën a yées mooy même examen ngeen def. même sujet même lépp même correcteur. la moo tax après même saal waaw. <laughs> léegi nag après dañ naan lan kii moom comme mooy fonctionnaire ndax niñ ko bindee seen loi 61 33 niñ ko bindee mooy lan dañ ne le fonctionnaire il est dans une situation statutaire et légale. le décisionnaire le décisionnaire ñu ne il est dans une situation précaire et révocable. te pourtant. même nit ki moom moo leen jël ba mu leen jëlee yéen a bokk même concours ah, examen bi ngeen di def du ñaari sujet de benn sujet la on prend les meilleurs. yow CAP CAP léegi nag yow nga génn sa diplôme. gis naa ñoo xamante ni 2010 la ñu am CAP acte bi génne 2023. 13 ans après. ñu bindee leen date de fait date de signature. day mel ni da am sa doom 2010 ñu ne xaar ba 2023 nga soog a ngénte loolu lay tekki. léegi nag bu commencé 2023 yow da ngay nekk ID21 maanaam le plus bas grade. échelon bi day wàcc. pendant ce temps ka nga amaloon doon CAP en 2010. Mhm. moom moom fonctionnaire bi dafay yóbbu 40 pour cent de son ancienneté moom du coup dafay nekk par exemple I un tiers wala IP yow kooku dafa lay dépassé day mel ni commencé na 14 ans avant yow ngay soo commencé te pourtant yéen a commencé no loolu mooy waral instant bi ñu toll nii. Mhm. nga gis nit ko nga xam ne dafa commencé jàngal depuis vingt et quelque ans. nit ñëw def six ans. ñëw raw ko en grade bu ngeen nekkee école raw raw ci xaalis. <laughs> ñëw si grade ñëw si xaalis yow raw si kàddu. <laughs> parce que di ngeen di nekk si école. effectivement tey kooku. <laughs> moom moo jiitu. directeur day ñëw moom très bien. Mhm. directeur mooy ñëw moom mu topp si. yàlla dafay def tey jii bu directeur absenté si kooku nga war a dem. effectivement mu xoolal la li nga war a jàngale ndax baax na wala mm. baaxul. waaw koo xamante ne yow ba ngay jàngale mu ngi jàng. kooku mën na laa ratifier si li ngay liggéey loolu mooy indi insubordination bi ngay gis nit yi dem a xool bu jeex. Mm-hmm. ba la nga war a def see ko doo ko def parce que. da nga naan kii ma mais yàlla lan laa def yàlla ba mu ba mu nattoo ma lii quoi en fait nattu la en te natt yooyu. Mm-hmm. li indi. Mm-hmm. lii yëpp mu ngi départ si benn circulaire boo xamante ne. ça date de 1967. 67 Senghor a ko bindoon. donc dafa mos a exister si je comprends bien. waaw mais boo ba de l'enseignement décisionnaire mais pas de l'enseignement. ok amul woon décisionnaire dans l'enseignement. mu ngi commencé bi ñu euh, def affaire au quota. bien avant bien parce que. Euh, avec avec euh, les sortants de l'école normale. Mm-hmm. am na ñoo xamante par exemple état day jël. 700 personnes par concours. OK, waaw concours mais 500 mais 700 ah, la ñuy jël. donc les 200 on les laisse en rade. donc pour combler pour bañ a. voilà la <laughs> état noonu la état doon def nag. léegi bu mu demee ba nga xamante ne am na déficit ñi mu bàyyoon en rade mu jël leen ñun déjà bi mu leen jël fekk ñu dépassé 35 ans. mu def leen indépendance donc revenons à décret mm-hmm. mm-hmm. euh, du décret euh, euh, circulaire. circulaire de une circulaire mu ñu ngi koy tuddee la circulaire 009. de 1967 circulaire boobu autant état dafa amoon ay fonctionnaire am am personnel bi nga xamante daf koy soxla moom la ñuy wax le personnel engagé moo dañ leen doon jël par décision mooy les sténos les dactylos les gardiens ah, les plantons ñooñu la doon soxla léegi nag bi ñu demee ba dëkk bi nekk si benn situation économique bu xaw a difficile Senghor mu ne ah yéen ñi nga xamante ne bokk dañ leen jël euh, nii rek dans le tas mënatu leen bokk ak fonctionnaire yi parce que ils avaient les mêmes avantages bu ñu doon dañ doon am ay rappel et tout et mm-hmm, mm-hmm. mën nag yéen comme yéen dañ leen jël bokku leen ak ñi léegi yéen ay rappel ak yooyu amatu leen si droit yéen avantage yi voilà amatu si droit léegi daal ku nekk daal dañ lay jàpp léegi kuñ jël dañ lay jël mais dañ lay toftal si benn koor boo war a nekk boo fa nekkee nag yow après avantage yi nga doon am yow dootoo ko am d'accord pas mm-hmm. boobu amul woon nag si njàngale mi mais lu tax mu fees si njàngale mi mooy bii jàngalekat yi coobare yi ñëwee mooy les volontaires et les vacataires bi jàngalkati coobare yi ñëwee système de quota bi nekk fii. jamono yi oh. ndaw Thérèse Ibadera. Ah. mu ngi noonu ah. très bien. Euh, ak ak Mamadou Ndoye. Mamadou Ndoye n'est-ce ngi noonu hmm. ñoom ñoo fi indi li nga xamante ne moom mooy. elde de yeeg système de quota bi. Hmm. léegi nag quelque part ñeneen def ko clientèle politique. di si profiter di recruter seen i mbokk. n'est-ce donc loolu moo indi woon les euh, les décisionnaires ñu bëri nag nekk ay décisionnaires parce que effectivement ñooñu bi ñu leen doon am na ñoo xam ñu leen di jël ëppaloon nañ trente cinq ans parce que dañ doon def ay clientèle politique mais la plupart des décisionnaires lii ko indi mooy lenteur ak lourdeur administrative mais ñooñu ils vont payer des pots qu'ils n'ont pas cassés parce que ñooñu tey bu ñu fekkee par exemple nga nekk si benn situation concours moo joxe sama exemple man mhm, mhm. man mosuma def concours volontariat ok jàngale mi lu ma si dugal. j'ai fait le concours de l'EFI bu njëkkoon balaa ngay dugg si waaw balaa ngay dugg si ñaa ngi si e-, e-, EFI ngay jaar ah, école de formation bi très ah, bien ah. EFI laa def muy la dernière promotion de 1999 donc EFI amatul amatul amatul école yi rek a fi nekk léegi crème bi moo fi ne crème mooy concours de recrutement des élèves maîtres nest pas bu njëkkoon EFI la woon donc 99 dernière promotion sous le règne de Abdou Diouf ñu def concours bi Les résultats devaient sortir. Entre-temps, il y a eu l'alternance, on a bloqué les résultats. Bloqué, bloqué, bloqué. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils a dit, légui, d'ailleurs, annuler le concours. Parce que le Sénégal, est dans une situation économique morose. Bon. Alternance, donc, voilà. Très bien. Mais, on sait que l'Oliombul, parce qu'il y a des milliers et milliers de personnes, qu'on ait que 2000 francs en son temps, c'est

quatre matières donc ñun moom lañ defoon on on nous verse dans le volontariat donc première injustice ñu verse dans le volontariat. c'est Abdoulaye Wade c'est le ah, gouvernement d'Abdoulaye boobu gouvernement non. Diouf la gouvernement gouvernement Wade la. Wade la Wade moo indi loolu. ok ñun ñooñu. tout en boo xoolee. ñi njëkk dem formation corps émergent yi njëkk dem formation dans les EFI ñu tudd ko tey le CRFPE. c' e e. mhm. est nous la septième génération. ñun ñoo fi doon nekk di grève de la faim à son temps. ok au temps si vous vous a une collègue euh, mu dëkk Thiès tey ma koy nuyu au passage elle était en état de grossesse instant bi ñu doon def euh, grève de la faim bi. xam nga donc instant boobu sax si lañ wàññee la durée du volontariat jëlee ko de quatre ans à trois ans ensuite de trois ans à deux ans ba pare yokk. la modique bourse qui était de cinquante mille après ñu yóbbu ko à soixante dix mille après mu dem quatre vingt mille. Euh, je me souviens bi ñuy soog a dugg si njàngale mi quand on était dans la brousse dafa tomboo nag euh, benn euh, saabu pëndax bu doon def jeu concours. xam ne boo gañee yaa ngi am fukki junni. Mm-hmm. xam nga moom lañ leen doon tànkantele moom parce que saabu pëndax boobu ngeen ma baalee ma tudd ko <laughs> moom lañ doon tudd dañ ne boo ñëwee si àll bi dañ naan laan. monsieur rek wala madame rek parce que boo gañee si concours bi rek fukki junni ngay am yow nag boo jàngalee ba weer bi day jox la fukki junni. xam nga Sénégal yàgg na donc bu fekkee ne sax dañ la jëloon fekk nga am trente cinq ans war nañ xalaat sacrifice yi nga defoon. après ñu jël sacrifice yooyu sax jàpp si au moins. ok ok mettre dans les dans hmm? mi ngi mi ngi ngi leer ah, mi ngi leer mi ngi hmm? leer euh, léegi lan bëgg. mooy euh, xam nga question de décisionnaire bi du question xaalis seen question de dignité ndax euh, tey maa ngi wax nii da ngay ñëw sama école moom fa benn daam boo xamante ni doomam sa prof fii bu dugg si njàngale mi tey moo gën a gradé son enfant sa prof parce que dañ ko reclassé non dégg ko xale bi tey yaa ji dafa jóge ak CAP dem CAP au lieu mu dem au grade supérieur ndax demoon na ba IA un demi te li gën a grave mooy tant que àggu ba IA un tiers buñ la reclassé da ngay nekk ID de un. c'est-à-dire pour tënk. Mhm. monsieur Camara Franklin pour tënk. Mhm. yow nga jur sa doom nekk si njàngale mi yow. Mhm. nga jur sa doom yow. Franklin sa doom fekk si la raw la ci grade. waaw loolu lay expliqué nii de. noonu la si glaat raw moom Sarr Sarr yow sa doom amul stress ah ba pare a yées sa doom am benn stress moom mooy sa patron merci loolu loolu loolu moo fi ne léegi nag li gën a yées si situation boobu bu ma la ne seen question de dignité mooy que les déjeuners li ñu bëgg mooy xaalis bi c'est important mais tey gis nga buñ ne la woon kaay jël grade bi nga war a am après xaalis bi ngeen bàyyi ba si kanam mun nañ ba bàyyi jusqu'à c'est pas la peine parce que li ñu gën a intéressé mooy ñu retrouver sunu grade bi ñu war a am. parce que ci grade boobu doguma la. ci la hmm. retraite bi di jouer. merci xam nga li gën a li gën a <coughs> doy waar mooy maa ngi faral di ko wax di joxe exemple sama soxna maa ko jiitu si njàngale mi de trois ans mais tey avec le grade bi mu am. dafa mel ni moo ma jiitu de quatorze ans. mais mais gis nga ne ah xam nga moom eh, soxnaam la mu mujjee joxe exemple ah. dafa a beaucoup alors les maisons sont en train d'exploser gis nga mais yow sa soxna ak doom léegi soxna léegi sa soxna quel que soit lu mu am sa salaire yow sa yoon ne aussi xam nga effectivement oui yow xam nga ni moom moo la ba salaire et pourtant yow yaa koy yore yore njaboot gi si si réalité loolu mooy la réalité sénégalaise moom et la religion aussi mu ngi noonu léegi nag bu ñu demee si situation boobu am naa benn collègue boo xamante ne directeur am dana ko man du ma bind sa grate si mur bi parce que rus naa xale yi di gis sa grade yaakaar ne seg yaa fuus la wala seg lañ fekk du yow dañ la tooñ léegi nag su fekkee ne par exemple des jeunes jëluñu ni mu nga wax ni nga continuer nii mhm. nga dem ba war a foofu la musiba bi nekk ndax euh, fonctionnaire bi FNR moo koy coupé muy fonds mhm. national de retraite dégénère bi ñu ko yóbbu IPRES institut de prévoyance retraite du Sénégal bi nekk fii mhm. lii gën a yées première chose bi mooy man instant bii maa ngi am salaire. Mhm. boo ma dimbalee boo ma dimbalee damay faju mais état bi neen damay am imputation. donc ça veut dire su may faju état bi dafay jël quatre cinquième yi mën ma fay un cinquième. waaw non baax na sax boobu mais bi gën a yées mooy man ba ma demee retraite man décisionnaire imputation boobu dañ ma koy dindi. yaa fayal sa bopp waaw benn. yaa yor sa njaboot. benn yor sa bopp yor say yow daal saa veut dire que ni fi mu nekk nii dafa mel ni instant bi nga sa doole néewee se lañ ne ah yow kat débrouille-toi. léegi xaymaal ñu ko ci ci koppar parce que li ma wax dafa dafa am solo. Mhm. masalan ku doon am cent franc. décisionnaire ba cent franc. waaw traité ba am cent franc. war na cent franc day yomb gars duñ comprendre. ok ma jox la l'exemple d'un décisionnaire tey. Euh, mun na am un salaire de quatre cent et quelques mille. boo retraité. Mhm. boo amee cinquante mille si lay yem. ma jox la exemple d'un proviseur proviseur laa la wax di hiérarchie A mhm. régime cadre ndax xam nga décisionnaire dafa euh, administration dafa am ñoo xamante ni euh, dañuy cotiser plus parce que dañ ne ay kilifa lañ ay ah, ah. kilifa lañ donc mhm. bu ñu retraité normalement dañu war a nekk si benn standing bi mhm. moo tax ñu tudd ko régime cadre maanaam dangay ngay cotiser ñaari yoon dañ lay dagg FNR wala kii IPRES ba pare dagaat la leneen muy régime cadre un proviseur de lycée dernier salaire en activité huit cent vingt sept mil mhm. salaire à retraite cent soixante cinq mille. foofu ngay tegee sa baaraam monsieur kamara di mhm. coordonnateur décisionnaire yi di seen mhm. émission hashtag news. Franklin ci jàppandal bi ñu dem ñëwaat. Babacar Diop téeméer ñaari tomb ñett la nouveau son tey jii di rek euh, émission bu am solo di ci dalal rek euh, monsieur Amadou Camara. Euh, coordonnateur décisionnaire yi. misaal bi ñu mujjee jox léegi ku ko dégg da nga naan monsieur Camara mi day ko malheureusement c' est la triste réalité moom laay wax tout le temps 6-9 ni am na yoo xam man mënu ma ci dugg parce que li ñu lañ naan loo xam-xam demba ma demba gën laa xam demba mais li muy wax nii est que waajur yi ak ñi nga xamante ni seen i seen i soxna dañu nekk ak ñoom. ak seen i doom xam nga lii xamuñu ko. lii bu ñu ko xamee sax mën mën na tas kër. waaye yow tas na kër yu jeex. ndax euh, am na benn collègue bu nekk Ziguinchor def na ma woon naa tudd trop mais du ma ko tudd parce que rajo la xam nga ni mu demee la. fonctionnaire bu demee retraite weer bi si topp dañ koy jox pension mais déjeuner bu demee retraite dafay daw si certificat de radiation mun na daw pendant fukki weer ak juróom si benn kayit bu ndaw boo xamante ni yow dernier mois boo retraite dañuy bind si sa bulletin de salaire bulletin de solde radié la fonction publique. ah yéen ngeen demee retraite. waaw. la waaw sa bulletin dañuy bind radié la fonction publique waaye ki la radié kay. weer bi si topp kay war na laa jox sa àq sa yelleef. non non terme radié bi kay moo baat bee ñaaw. waaw moom laa la wax kay. <laughs> waaw léegi nag euh, décisionnaire bi mën na toog fukki weer ak juróom di daw si ndax fu ñu jox benn kayit bu tudd certificat de radiation mooy dàq ba ngay wax certificat de radiation. certificat de radiation bi la ngay daw di wuti kayit. voilà kayit bi nga wut ko fukki weer ak juróom mu soog a génn bu dee décisionnaire benn weer bi lañ lay fay bi yor bi mu génn fukki weer ak ñeent yëpp da koy perte. ah non lii injustice la benn weer. Euh, waa ji def na ma damay liggéey am sutura. retraité sama lépp xaawee ko commerçant bi ko doon jox marchandise moom moo ko yóbbu justice mën ko fay. parce qu'il n'a plus les moyens. mi ngi noonu mais ay cas yu bëri ñoo xamante ni sax da ngay toog am na benn dame à Diourbel di mois la toog bon et c'est dit dix mois su ma ñëwee. bon dañ may jox dina tane su ma ñëwee au moins ma ma man si faj sax ay fatt ay buntu. dix mois ñu woo ko ne ko sa certificat cessation génn mm. mu ñëw. ñu fay ko soixante trois mille fukki junni ak ñaar ak juróom benni téeméer ba tey mu ngi tëdd dafa ABC. kooku mooy cas bi ci gën a fes. dafa ABC waaw. man cas boobu bi ma ko déggee laa di ci wax di ci dox di ci wax di ci dox xam naa nag man duma dara micro laa am micro laa am ak kilifa yi may dalal. Mm-hmm. donc foofu rek laa mën a jàllale sama message pour au moins président la république dégg ko. actuellement kan mooy seen interlocuteur yéen. ñun suñu interlocuteur mu war a nekk normalement le ministre de la fonction publique. mais les syndicats ñoom ñoo war a porter le combat là parce que euh, légalement ñoom ñooy sunuy porte-voix au niveau voilà justement ci syndicat yooyu hmm. ci syndicat yooyu sax bu ma la wax sax interlocuteur hmm. foofu laa bëggoon jëm ci syndicat dama gis ni hormis sa hmm. parce que mënu ma ko woo te waxul ñetti poñ yoo xamante ni dégénéré bugg na ci quoi ñëpp dama ne leen mais dama gis ni moom lim ci wax dafa dafa dafa bari lool lool lool kon hmm. daanaka moom mooy moom daanaka moom mooy jàpp ci pecc mën naa jàpp ni sax moom c'est le premier à nous avoir soutenu Mbaye Sarr moo ñu njëkk njëkk njëkk jàppale si syndicat musuma bokk syndicat am wax dëgg yàlla mm-hmm. mais moo ñu njëkk njëkk jàppale dañ dem mu jël xaalisam jox ñu ñun dem nañ fa Ziguinchor di def ay tournée pour sensibiliser mais Mbaye Sarr daf ñu jàppale bu baax a baax xam nga problème bi mhm. plan d'action bi passé mhm. bi nga de rémunération mhm. pourtant bi ñu demee ba am seen gain de cause si mbirum koppar bi rek dañoo jël li yëpp teg ko lii problème de statut et de carrière la mais les syndicalistes ont préféré régler le problème pécuniaire ñoom loolu moo seen problème xaalis bi dugg c'est bon quoi ñuy tudd ay kembax yu kan xamul. macha allah léegi nag ñi nga xamante ne ñoom la ngeen di liggéeyal chaque jour ngay toog di leen xool te ñoom liis gën a metti mooy ñoom seen syndicat yëpp. dans leur bureau am na ay décisionnaire. loolu ma si jaaxal kay. dans leur bureau ñii seen adjoint direct ay décisionnaire lañ ñii seen chargé de revendication ay décisionnaire lañ mais ñooñu ils se disent que non bon gars yi ñu ngi si gars yi ñu ngi si mais rythme bi ñu si nekkee nii. les gens vont aller à la retraite di parce que bu ñu ko jëlee woon rythme niñ fi doxale woon temps ñoom Sawru nekkee. waaw ah. SAEMS. Mhm. yegg seen xaalis bi ba naan enseignants yi tekki nañ. Ah, mooy parce que parce que ku dem ba nga ni ma seen i adjoint yooyu. daal di mhm. ñoom aussi ñu ngay toog ca fañ naan. mais ñoo bokk ñoo bokk voilà fa ñuy waxtaanee. am nañu si nekk stable négociation. voilà moom laa la wax mais yow xam nga ñàkk bopp weesuwul. nga jiite mbir moo xamante ne dëgërul am na benn secrétaire boo xamante ni man bi mu nekkatul secrétaire général laay xam ne ab de moom nekk na ko ba jóge ko te kaasalu leen te kaasalul boppam si a yées mooy yow da nga ko doon demander audience sax pour rencontrer mu bañ na doon rencontrer sous prétexte que collectif nga et après <laughs> et après léegi comme dem na retraite chaque jour mu woo ñi ñi dina day joxe ay orientation mais à quoi bon ah, man ki ngay xam hmm? naa ko quoi xam naa ko bu baax a baax daan fëgg ci table ji baax a baax et puis dafa amoon baat dafa amoon baat syndicalisme bien kooku lu mu bëggoon régler da koy régler. donc lu mu bëggoon régler da koy régler. parce que def na deux parce que ñoom deux la après mu jeex. deux ma cité si rek comme le CELS authentique l' inspecteur Pape Marie Sylla c' est un décisionnaire. Hmm. waaw mais yow nga nekk décisionnaire gis li gars bon am na ñoo xamante ne xëy na yàlla nàkkal na leen. ba am nañ lu ñu mm-hmm, fàggu mm-hmm, ba mën mm-hmm. si gérer mais ñëpp amuñu chance boobu noonu xam nga Sénégal comme ni nga doon wax charge familiale dafa diis bu la yàlla nattoo nga yor nga nekk par exemple le seul travail de la famille ah Sénégal léegi de waaw pour nga compliqué donc bul xool nit ki ni non da ngay gis ñoo xam ne naan la non mais yow yaa war a préparer sa retraite mais day fekk balaa nga naan am ne li nga yor bu mënul satisfaction bi da nga am loo denc. Ah. mënul nekk. denc kay ci jamono yi ñu toll sax. <laughs> non décisionnaire ku dul décisionnaire sax. non c'est c'est compliqué donc yéen vous hmm? avez des problèmes pour banque lebal leen alors. mais bien sûr ah yéen banque leen ma jox la exemple bu gën a mhm. man waroon naa am DMC. kañ laa déposé woon DMC. 2011. raa ngay def 2011. mais imagine nga déposé 2011 ba 2023 mu war a génn. ma ñëw. ñi nga xam ne ñoom nga déposé ndoolu ñu seen bos nga dem DMC jaabante ñu ne la non banque yu moo la rejeté ma def sama banque waa ji wan ma ordinateur bi xam nga lu si banque bi na insolvabilité xam banque yi ñu ñuy bëgg rey ak banque moo lay lebal trois millions cinq cent di la fay ko sept millions. waaw ma insolvable ma ne mais ñu ne on tu dois à la banque six millions ma ne man non je dois pas la banque six millions ñu ne ma si man la man lewu ma leen six millions man ay 1 million boo xamante ne chaque année bu tabaski ñëwee nga rallongé ko. Hmm. loolu moom sax andi 3 millions. Hmm. mais 3 millions laa leen amal ngeen ne 7 millions laa leen di fay léegi 7 millions yooyu moo tax ngeen bloqué sama DMC. léegi tey su ma si yaakaaree pour tabax ça veut dire que man après je suis foutu quoi yaaku naa. mool moom doo ko am te banque bi ma nekk nee nañ moom mooy jàppale nit ñi pour mu tabax muy ah banque de l'habitat yaa war a jàppale nit pour pour pour ñu tabax yow banque de l'habitat yow yaa xañ say say say client pour ñoom ñu tabax. sous prétexte que tout simplement kooku daf la ameel ay boru weccit parce que mën naa mën naa ko tudde weccit ay bor yoo xamante ne boo ko doon dajale nit ki amu si moo tax mooy lancer encore un appel ça aux enseignants wala aux fonctionnaires d'éviter les banques là <laughs> parce que wax dëgg yàlla booy jël dina neex trop mais liñ lay waaw teg liñ lay teg. non góor bu ne actif ci loolu lay liggéey a ak ah. euh, Famara euh, ñu koy nuyu au au passage. Mm-hmm, parce que day wax bu bëgg a dee. mais xam nga. li nga il aussi. il est on s'est mais xam nga li nga wax la rek. Mm-hmm. dëkk bee toj. dëkk nit ki xam na ne lii daf koy lor. mais mais dafa naan bu ma deful lii fan laa jëm. yàlla na yàlla moo état moo ñu war a jàppale. Ah, état de moom daanaka. waaw état moo war a protéger ay ay boppam ñu yàlla daal di suturee. Mhm. alxamis jógoon ngeen ci jour bi nit ñi di def euh, ubbite l'école bi. Mhm. Euh, les élèves. Mhm. ngeen jël ab mémorandum xëy. yore seen mémorandum. waaw bu ci nekkoon. mémorandum ak ñan ngeen ko doon jox dañ ko def de la fonction publique. ndax 2022 bi mu jël fonction. xanaa dañ ko nommé tuuti rek. après ñu dem si euh, conseil interministériel. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. le ministre de l'éducation wax ni ah ginnaaw ba yokk nañ priorité bu baax a baax xam naa ne moom nañ toog at yu bëri te duñu am jafe-jafe si njàngale mi moom bu mu jëlee kàddu mu ne ko ah am na ñaari problème yoo xamante ne buñ si waxul tuuti rek fii ak néew di nga dégg problème mu ne bi si jiitu mooy kaaw décisionnaire yi moom le ministre de la fonction publique monsieur Gallo Ba moo ko wax ñu jóge foofu mu dem assemblée nationale ne feex fan yu néew dootul am problème si diggante décisionnaire ak fonctionnaire samay service liggéey nañ si liggéey bu mucc ayib ba yu néew rek dootoo dégg ni euh, am na différence entre fonctionnaire ak décisionnaire ndax ñu ngi corriger bi mu ko waxee léegi at jaar na fi amul dara lu mu si def mu am benn décret bu ñu indil ñu ne décret boobu mooy décret bi di modifier le décret 74 347 bi nga xamante ne moom moo ëmb képp kuy jàngalekat yi boo xamante ne doo fonctionnaire décret boobu noonu ñu jël ko lépp la nga xamante ne xam nañ ne injustice la dindi nañ ko si nee nañ ba des li ëpp solo mooy que dañ ne mbir mi d'accord nañ ne ñoo leen doon tooñ boobu yëpp mais nag dinañ ko corriger mais correction bi dafay commencer dafay tàmbali tey jëmale maanaam yéen ñi nga xamante ne yéen la dal seen kaw masse rek mais mbir mi amul tànku gannaaw. ah parce que c'est li nga fi yëpp quand même c'est difficile à régler. waaw mais ñun. mën nañ ko euh, régler mais ça. Ah, moo tax ñun ñu proposé. ñun am nañu leen proposé xam nañu proposé mooy lan différence entre décisionnaire ak fonctionnaire d'abord si plan de carrière bi en si retraite bi. surtout retraite léegi plan de carrière bi nee nañ leen. la circulaire 09. Mhm. nañ ko dindi muy date d'effet date de signature dootu am. maanaam année ba nga am diplôme année boobu la ñuy commencer. di compter di la comptabiliser ñoom nañ d'accord nañ dindi nañ loolu. ok mu des nag retraite. nañ ko par un par waaw remplace na beneen décret. ah dindi six indi neuf. waaw léegi beneen bi mooy. ñu ne léegi jàngalekat bi na yobbu quarante pour cent de son ancienneté ñu ne waaw loolu moom d' na nañ ko mais li des mooy léegi ñu ne léegi ñi nga xamante ne ñoom la mbir mi seen kaw correction boobu ñooñu moom affaire du mën a dellu sa parce que une loi n' est pas rétroactive loolu la ñu wax. mais ñun fi lañ fekk validation des années de volontariat. et de contractualisation. Mm-hmm. lan moo tax ñu fay ñi ñi rappel. bu fekkoon ne loi rétroactive moom rappel du am lan moo tax ñu fay rappel parce que la loi a été rétroactive te loi bi dafa rétroactive moo tax monsieur Fall mooy que ñun jàngalekat xam nga lu ñu tuddee correction. Mhm. sa doom boo koy corriger. Mhm. c'est pour que li nga xamante ne moom la doon def bu bañ ko defati. donc correction daf koy jariñ mais corriger ñoo xam ne duñ ci bénéficier wu loolu tudd correction. loolu mën nañ ko utal beneen tur bu lu correction. léegi nag li ñu bëgg mooy décret bi nga xamante ni ñoom ñu naan mu ngi koy waaye bu buñ ko signé san la rétroactivité mooy que jàmm jeex na jàmm jeex na la ñun duñ ko nangu mais yéen bi ngeen commencé seen xeex bi ba léegi ah mhm. yéen a ngi doxal seen bopp syndicalistes yi daanaka jàppuñ ci pecc mi mais honorable Guy Marius Sagna est-ce que mos ngeen ko seeti non même avant sax muy nekk euh, député non xam nga Sénégal mhm. malheureusement dafa am mbir moo xamante ni euh, bu xesee bañ coloré sa da nga am problème non mais bien avant même moom muy nekk mhm. député xam nga ak waa dama gis ni ñu bëri jaare nañ fa seen ah. problème réglé wu waaw ak ñoom parce que dañ am nañ fu ñu la dalalee mën nañ la waxal mën nañ mën nañ mën nañ mën vous êtes des intellectuels kenn leen mm-hmm. part du ci maan comme ni ñu koy faral di wax quoi mm-hmm. mais xalaatoo ni même budul moom sax ak ñeneen mais ah, proposé woon ñu bëri proposé pour ñu seet ko à son mais xam nga couteau à double la mu ngi mel nii rek tur bi ñuy bañ gars yi tudd Sénégal fii mm-hmm. am na ñoo xamante ne buñ la gisee ak ñoom état bi buñ naroon sax dafay téye loxoom dafa am ñoo xamante ne vraiment état. Hmm. tey jii autour de la table de négociation am na si benn syndicaliste boo xamante ni état bëgg ñu toog am ma. mais ils n'ont pas le choix. que élection moo ko fa yóbbu. élection ko fa yóbbu représentatif syndical mi ngi noonu. Hmm. malheureusement mooy que nag nguur gi ñiy def bruit la soxla ñoo leen ragal quoi en fait. léegi Guy Marius Sagna avec tout le respect que je lui dois. Hmm. bi nga xamante ni. Euh, def na tapage partout partout ñu dugal ko kaso fu nekk fu nekk. Mhm. mais dafa dem moom boo xamante ni il est devenu incontournable. ñi ko daawul may nopp dañ koy may nopp. Mhm. parce que xam nga ne kii kat li ko taxoon jox mooy askan bi. mënoo ko dindi tey même à l' assemblée nationale. Mhm, tu l' entends parler nga xam ne day wax lu xam. loolu moo important en mais Sénégal nag soxla ñu loolu. lu ñu soxla mooy nga caresser nit ki dans le sens du poil. def ko alxamis. Euh, stratégie la wala coïncidence. non stratégie la. Ah, waaw parce que yéen a ngi fi bàyyi trois mois defu leen dara. waaw stratégie la waaw booy di jàng ngeen leen gis nga de booy di jàng ñu leen di tiital yore seen feuille la lettre ouverte sol seen gisoo sol seen tiital. non stratégie la parce que. en fait euh, dañu xam ne. comme ni ko waaw dañu xam ne. syndicats yi ak euh, autorités yëpp ñu ngi si terrain bi xam nga ku nekk ak naan waaw jàngale mi ngongo ubbi tey jàng tey ubbi tey jàng tey boo xamante ne ña war ñu war a jàngale ñu ngi xalaat tey suba bu ñu <laughs> ala traité ñooñu amuñu loo xamante dafay dundal sax xarulaanu dafay compliqué mhm. dafay compliqué moo tax lu ñu bëgg mhm. mooy euh, état bi comme ni mu def mhm. ak euh, le professeurs d'université mun na ko def ak ñun xam nga mooy problème bi ah. mooy que sunu dernier salaire en activité ah. nañ ñu jël quatre-vingt pour cent yi jox ñu ko n'est-ce pas notre dernier salaire en activité ñu jox ñu quatre-vingts pour cent yi parce que état bi xam na ni daf ñu tooñ. Mhm. léegi nag bu ñu indilee argument que ni pour ñu jox leen quatre-vingts pour cent de votre ancienneté il faut que ngeen corriger plus donc dañ naan kat ñun ñoo war retraite à soixante ans <laughs> mais d' accord nañ dem ba soixante-cinq ans pour ça au moins ñu cotiser plus. ñun nañ yokk suñu cotisation. pour jox ñu loo xamante ne. Mhm. bu ñu dalloo man si jox suñu njaboot. am na solo di rek kàddu yi Amadou Camara Diène di coordonnateur des enseignants décisionnaires moom lañu mm-hmm. dalal fii ci euh, Vibe Radio téeméer ñaar ju tomb ñett le nouveau son di weer juróom-ñett fan octobre 2023 Franklin Mamadou Fall di dem ñëwaat aywa ba tey rek dellu si nañ di wéyal euh, waxtaan wi nee na stratégie la ci la tax ñu daje kaak bés boobu nga xamante ni moom moo di alxames jamono bi nga xamante ni ci la gone di ñëw lu ñu dese ci waxtu nag euh, bariwul mm-hmm. daanaka fukki simila wala lu ko yées dinañ wax ci année scolaire bi nga xamante man maa jël euh, sama coobare ci suma xalaat mm-hmm. tàgg ko ñetti parti mm-hmm. mu jëm ci élection yi ñu ngi ci pré campagne dañu dugg ci campagne <laughs> ma la ah. dañu dem ci campagne après élection dafa am tamit eh, benn benn paramètre boo xam ne dafay importance. muy gars yi koy fàtte. parti politique yi <laughs> trois quarts yi fa nekkee jàngalkat lañ. loolu mooy danger mi en fait boo gisee tey ñu ngi am déficit criard d' enseignants. important même y a xam ne enseignants ñi ngi daw. waaw nekkatuñ fa. xam nga lu tax mm. parce que enseignants yi bu ñu demee def yenn at yi si yenn zones yi ku nekk da ngay bëgg a ñibbise. waaw léegi nag eh, ni nga xam ne noonu la noonu lañ def mutation enseignant dafa def de sorte que. loo gën a sori gën a am point moo tax ñoom boo compétiré ku nekk Dakar dañ naan laan Dakar boo fi nekkee ana bu nekk zéro point ngay am waaye ki nga xamante ne ana bu nekk day am neuf point bu defee six ans rek dafay mën a ñibbisee. ok léegi ñoo ñëpp bu ñu ñibbisee. déficit mooy am foofu. ba pare nag moom benn affaire bu gën a grave si nekk. ñaata enseignant lañ tëj instant bi. y a des enseignants qui sont en prison. mais bañ leen di tëj aussi est-ce qu'ils en tout cas ah. mais en tout cas on les a. enfermés non mais pour des délits d'opinion aussi. waaw d'accord bon xam nga man je suis pour juger. Mm-hmm. ci ndax mm-hmm. ou pas mais je dis. Mm-hmm. ci jàpp. ci manifestation dite politique lañ leen jàppee. man gis naa ñoo xamante ne jàpp nañ leen te du manifestation dite politique. ah je vois le concept <laughs> waaw am ñoo xamante rek. fañ ko doon defee. ñu ñëw yi waaw parce que mhm. bon mooy buñ la jàppee flagrant délit. xanaa la juger au bout mois trois mois wala. donc si mbedd après kaso pendant mois après amul kenn dox si yow. loolu aussi beneen mbir la pendant ce enfants n'ont pas de maître léegi nag njàngale mhm. ren pour mu sotti. Mhm. dina kéemaane ndax Sénégal dañu baaxoo année électorale. année électorale vraiment dafay compliqué li koy compliqué mooy euh, généralement même politiciens yi dañuy investir les rues ak seen caravan yeeg yu demee noonu xale yi ñoo leen topp xale yi ce sont les élèves mm, mm, mm, xam nga léegi nag benn pertante bu ndaw rek bu jaaree après mooy l'étincelle qui va mettre le feu aux ah, parce que li tax ma indiwaat ko di ko baamu di ko baamu di ko baamu mm-hmm. mooy que ni ci manifestation yi fi amoon mhm. effectivement li nga wax noonu mhm. étincelle boobu noonu dafa duggoon ci école yi ba ñu jàpp ci ay élèves yoo xamante ne après dañu ñun suñu yoon nekku ci mhm. jàpp ci ay professeurs yoo xam dañu après suñu yoon nekku ci xam nga laaxaale ñëpp quoi xam nga ci manif kese lañ doon laaxaale ñëpp donc at mi man maa koy élection ah, koy xalaat de mi ngi noonu bu baax te bul fàttali ne daaw dañu tëj école yi pendant ay semaines ak Covid aussi buñ ko fàtte. waaw mi ngi loolu yëpp man ak Franklin dañ koy fàttali. donc ñun suñu doomi nar nañ perte ñetti at di. wala perte nañ kii ñu fekki see décisionnaire day tu as vu. day parce que ans fonction publique. donc ñoom déjà perte gum ñaar. ñaari ngi ki waroon xam ñi waroon am mhm. bac 18 ans ñi ko amee 20 ans. Mhm. perte nga ñaar. waaw bi ci biir nga am 23 donc sa licence xaw ma yooyu noonu njàng nga war a ñëw bala fooy liggéey léegi 32 ans boobu noonu nga nekk si bu dee enseignant nga nga yow di diplôme professionnel. moom laa la wax ni fooy liggéey kañ nga koy am. donc nañ xalaat gone yi nag. ñu ngi sacrifier la jeunesse li ñu war a def mooy sóoraale xale yi. dafa mel ni sóoru ñu leen nag fi mu ne nii. sóoraale xale yi te nag bu ma koy wax. Hmm. gone de tout bord ah. man bu ma ci bedd kenn ah. je parle des politiciens de manière générale kenn laa ci dindiwul. mais ñooñu ñëpp a yem. bu ma fi nekk naan ay opposé ñoom ñëpp. mais politicien est-ce que am nañ différence. ah xam nga kan moo baax. kii faloogul. mais boo xasee ba fal yaa fi gën a bon ça veut dire ñoom sax même bu ñu faloo ils changent ils tournent leur veste dañuy changer casquette ndax doon nga fi gis nit mu naan bon man su ma faloo nangam sangam mu ñëw faloo après boo déggee discours am da nga naan mais est ce que kii moom war a wax la moo tax instant toll nii tembe mm-hmm. ñun am nañ problème pour choix. parce que ñi nga xamante ñoo nekk suñu suñu kanam ku nekk am nga situation ba xam war nga ñu ni tu n'es pas digne de confiance. <laughs> <laughs> ni qu'est-ce qu'on va faire. oui c'est l'enseignant mooy ñii ñoo jàngal président. voilà voilà les yéen yéen a jàngal président. donc remède bi remède pour sauver année bi. waxuñu année bi dafa dugg ci guuta mais ñun fi ne nii dañu njort nii moo mooy loolu quoi c'est terminé. commencé gul bi ah. premier remède on dit un bi mooy déjà ñu ngi ne ubbi tey jàng tey. Mm-hmm. am na école yu bëri yoo xam ñu ngi si ndox mi. surtout surtout Dakar nag. waaw li gën a kéemaane ay école yu bëri ñu ngi si ndox mi ba pare ñoom ay centaines et des centaines d'abris provisoires kooku kooku dootul débat waaw léegi parfois on te fait benn construction à Dakar boo xam amul njëriñ loo xam ne koy tabax effectivement tojaat ko tojaat ko avant réception hmm. Yoff laa dëkk place Mamadou Diop ba nga xamante ni moom lañ def le pont là échanger dañ ko defaroon temps yooyu pour xeex mais de Dakar bi fi nekkoon euh, noonu da day paabe Dakar et tout ñu créer le ministre du cadre de vie monsieur Diène Farba Sarr hmm. mu commencé di defar yenn kii en collaboration avec euh, les ministres maires yi nekkoon dans localité localités Yoff ñu defaroon fa lu bëri sax def waaye mais affaire bu rafet macha allah mais avant ñu koy inaugurer toj nañ ko parce que on avait besoin de de donc ce sont des millions qui sont partis en fumée. des milliards combien de de classes on pouvait construire avec ah. lu mel noonu moo fi bëri tey da gis ku tabax bu pare sax. après ñu xool li lépp la ah nga def baaxul après on reprend. mais on se trompe de priorité en fait. léegi pour ñu bëgg a njàng mi normal daal euh, mm-hmm. monsieur Fall. Mm-hmm. mooy que abri provisoire yi dañ ko lijjanti. na lu jënti affaire yu école yi nekk inondation parce que mënul am ku am ndey ku ma amul ndey. Mm-hmm. ki nga xamante ne doom dafa nekk si euh, ndox mi. il n'est pas fautif. bilaay donc ñi nga xamante waaw ñi nga xamante ne ñu ngi seen doom ak nekk dans les conditions et pourtant da ngay dégg ñu naan daan waaw ñu ngi jël seen doomu yóbbu leen si école yu baax nangam sangam mais Sénégal ñaata président la am quatre présidents amul benn président bu si jàpp privé. yéen leen jàngal. tous les président yi fi nekk ba say ñëpp public lañ génne. ne tey président Macky Sall moom nangu na ni accepté na ni. ay way juram seen ndox jotuloon seen digg ginnaaw. Mhm. bon bu école publique tey du mën am li mu am tey. donc école publique ñu ko sàggane dañ ko war a euh, ñoŋal. te pour ñu ñoŋal ko nag mooy ñu fexe ba politique bi sori école publique yi. mais politique bi pour mu sori école publique aussi foog jàngalekat yi aussi. def la part des choses entre njàngale mi ak politique bi. voilà neex na mais naa fi leen koy mën a yemale beneen yoon moom foog nga ñëwaat nag. <laughs> décider moom li ma la wax rek. man topp moom. Ah foog nga topp ko parce que. tant que lii jeexul mooy gis nga catastrophe am. Mhm. ñun xam nañ ne euh, bool nañ ko ak gëm yàlla di ko supporter. mais am na ñoo xamante ñu ngi koy dund te xamaguñu ko. merci beaucoup merci parce que xaalis nga koy jëlee dafa neex loolu mooy problème am na ñoo xam ñu ngi koy dund mais xamaguñu ba saag ni man ne bu ñu xësee ba egg si benn situation ñu ne la ah yow kat da ngay dem. Mhm. Euh, ndeysaan boo daan booy dem décisionnaire état dafa daan jël benn xaalis jox la muy fonds de dégagement fonds de départ à la boobu bu njëkkoon c'était cinq millions mais léegi matul sax million ñu ne loolu lañ lay jox pour nga euh, préparer sa retraite ak Sénégal fii réew mi toll. li moo tax gars yi jël seen xaalis di ko jox seen doom yi naan leen dugg leen si gaali yi fekk kenn kenn kenn encouragé wu ko. mais ah, jaaxle muy indi loolu. acca mi ngi noonu amoon na solo amoon Camara Diène ah waxtu jeex na am na solo mais ah, ah, waxtu ah, bi ah na eh, mais gàtt na de mu jën a gàtt quoi maa doon wax day gudd mais gis nga temps bi noonu la toujours hmm. booy wax loo xamante ne dafa passionnant en fait temps bi du doy hmm. ndax eh, mbir mi ni mu toll la eh, mbir moo xamante dafay laal ay kër laal ay njaboot laal ay boroom kër faw boo si wax rek il faut mu am nu muy demee hmm. moo tax ñuy ñaan aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiite ñu jiital xolu yërmande ndax mbir mi foofu lañ ci toll mbir mi dafay mbir moo xamante ne euh, du loo xamante ne sax même buñ dañ ko war a ñaan war a saraxu mm-hmm. pour que ñi nga xamante ne ñoo nekk a un pas wala deux pas de la ñu so man ñooñu laay soo parce que dignité noonu la noonu lay demee te ñi ngi comprendre dëkk ak yow dañ naan kii lu mënoon liggéey fa mu doon def xaalis sax fekk na yow yàlla xam doy yàlla xam doy kon daal mi ngi noonu defe naa gi wax nañ ko waxati ko fii ci hashtag wax nañ ko ci émission 6 9 dama koy waxaat tey tey nag mm. euh, tunga ne toog ñu nataal gis nga mm. monsieur Camara Diène way mm. Amadou moom moo fi ñëwoon tey ji encore message bi laay lancé waat rek l' état du Sénégal nañ ci jéem a trouver solution yi ñu war a trouver solution bari na mais les questions de vie ou de mort la c'est mm-hmm. parce que vraiment liggéey di xëy di gont di xëy di gont pendant métti na ah métti na voilà mhm. donc euh, tey daal bii lañ leen indiloon du doon seen émission Hashtag News euh, Franklin Mamoudou Fall moo leen ko doon euh, dégtal doon ci dalal rek monsieur Amadou Camara Diène di coordonnateur des enseignants décisionnaires ci kanam tuuti anta ak Maguette nañ ko tegal ci digital bi gannaaw Vibe Radio point application bi tuñu teew nañ wéy leen di ñun ci Facebook Twitter Instagram suñu chaîne YouTube ak suñu canal plus chaîne 557